mbokk yi dal ci seen xibaari suba gi di bàyyi ko fii ci Sahel Network TV ñu fas yéene indil leen li gën a fës ci boppi xibaar yi Banjawaali Mbay la ma ñëw ak yéen ci boppi xibaar yi. wax nañ ne am na liggéey boo xam ne test boo xam ne ñu ngi koy def foofa ca Bakaw euh, ci jëmale ko ci Covid 19. kooku di Mamadou Touré Dabo nga xam ne moom mooy njiitali VDF wax nañ ne joxe na lu toll ci téeméeri junni ak fanweeri maalo ak sukkur. GDC ndaw li nga xam ne moo jiite farandoor ya wax na ne nag IEC dafa war a gi ñenn ci parti yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi. GMC ñoom nag am na ko soqeekoo ci ñoom dem bokki NPP. lenn ci réew yi Afrique yi ñoom nag jamono ji ñu ngi jënd garab boobu nekk foofa ca Madagascar nga xam ne ñu ne mën naa faj Covid 19 ñu tuddee ko Covid tonic mbokk yi dinañ leen indil yaatal ci xibaar yi. jàngoro bi ñoo wax coronavirus dafa reye te dafa wër àdduna réewi Gambia am nañ ñu ees ñoo xam ne jàngoro bi dal na leen bul raxas sa loxo ak ndox bu tilim nanga fexe ba booy raxas sa loxo mu nekk ndox boo xam ne mu ngee daw nga àndale ko saabu te it di jonj sa loxo lu toll ci ñaar fukki seconde ay ndaje yu mel ni ngénte ak takk na ngeen moytu di lekkandoo ci benn bool na ngeen góorgóorlu ci soriwante aaral sa bopp te aar say njaboot ngir bañ jàngoro gi tasaaroo toog leen seeni kër yi gis nañ ne foofu ca tundi Bakaw am na test bu am solo boo xam ne ñu ngi ko fa doon def jëmale ko ci li ñoo wax Covid 19. foofa nag gis nañ ne daal nit ñi génnoon nañ bu baax a baax pour ñu seet li nga xam ne moom mooy jële jàngoro fii ci biir réew mi. bu ñu seetloo liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bunti wérgu yaram gi àndoon nañu lenn ci takkadeer bi ñu gunge leen foofa ca tundi bakaw ñuy seet nit ñi ñuy dugg ci këroo kër di seet nit ñi ndax amuñ benn jàngoro boo xam ne euh, jëm na ci li ñoo wax covid 19 kooku ñuy wax moom Mamadou Touro Dabo di doomi réewi Gambia ku yàlla barkeel la ci wàllu koom-koomi àddina moom nag baax na lool ndax tabe tax na ba weeri koor gu nekk dina génne li nga xamante ne ni uh, alalam la ci poosam jaarale ko ci buntu mbootaay bi nga xam ne moom la taxawal di VDC joxe uh, ndollantam ren ji na gis nañ ne joxe na lu toll ci téeméeri junne ak fanweeri junne yi saako sukur ak saako maalo ci weeri koor gi. terewul fan yi la ñu woon ginnaaw joxe na lu toll ci juróom benni téeméeri junney saaku foofa ca Kanifing municipal council ba waaye tamit joxe na ko fii it ci bànjul waaye bu ñu seetloo jàngoro ji ñuy wax Covid 19 tax na ba moom day dëgg-dëgg lam doon joxe yokka na ko ci bile at. ndaw li nga xam ne moo jiite farandoori GDC. ñu xamee ko ci euh, Gambia Democratic Congress muy MC Cham Junior moom nag jamono ji mu ngi oo borom këri ki nga xam ne moom moo yor wàllu sànni carte gi fii ci biir réew mi ne daal dafa am euh, parti yoo xam ne dañu war a tegg seeni mbir ci li nga xam ne moom mooy élection moom Thiam ba tey mu ngi wéyale di wax ne ku ci mel ni activiste jëwrin bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu euh, tubaab yi ñu xamee ko ci Amat Ba nga xam ne moom moo jiite parti bi ñuy wax NRP ak ki ñuy wax Henry Gomez nga xam ne moom moo jiite parti bi ñuy wax GDPD ak ki nga xam ne moom la ñoo wax NPP di pati président Adama Barrow ne jamono ji daal dañ war a seetaat seeni parti yi bu baax a baax ba léegi rek mu ngi xamal borom kër yi IEC ne daal war naa mun a delluwaat mu seetaat boppam moom ci boppam ngir pati yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw ñu génnee leen fa ñu defaraat seen i bopp bu baax a baax fi lekk beneen élection bi nga xam ne moom lañ dégmal si. kenn ci koo xam ne mu ngi nekk ci parti bu ñuy wax Gambia Moral Congress ñu xamee ko ci GMC muy wuyoo ci turi Momodou bi moom nag. soqeekoo na ci pati bi mu nekk dem mbokki pati président Adama Barrow ñu xame ko ci National People's Party muy NPP. moom Sidibé nag nekkoon na koo xam ne euh, former administrative secretary la foofu ca pati bi ñoo wax GDC jamono ji nag mu ne li tax nag mu bàyyi pati ba dem bokki parti euh, NPP mooy ne gis na ne Adama baro daal euh, moom moo nekk njiiti coalition bi ba léegi te ba tey nag moom gis na ne président Adama Barrow daal lim liggéey ci ñetti ati yi mu ne gis na ne daal mucc na ay réewi africa gis nañ ne réew yu bëree bëri ñoom nag jamono jii ñu ngi laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy réew yu Madagascar pour ñu jaay leen garab bi nga xam ne moom mooy faj jàngoro bi ñoo wax Covid 19. gis nañ ne nag réew mu ñoo wax Guinée Bissau ñoom euh, yónnee nañ seen i bataaxal réew mu ñoo wax Tanzania ñoom it yónnee nañ seen bataaxal foofale réew mu ñoo wax Equatorial Guinée ak réew mu ñoo wax République of Congo ñoom tamit yónnee nañ foofale pour ñu jaay leen garab bi ñoo tuddee tonique. mbokk yi li mooy wone xibaar yi nga xam ne moom lañu leen indil fii ci Sahel Network TV muy bàyyeekoo ci capitali Gambia Banjul doon leen ko jottali nag Banjawaali Mbay la ñu jox leen dig daje ba beneen yoon maa salaam